Euh, daanaka ci làmb kenn mën na woon doon woon wax làmb te waxoo Doudou Yaye Katy euh, ba mu génnee àdduna sax ci yenn ci benn wayam ñu ngi dégg Youssou Ndour euh, di ko rek sargal ci benn ci ci ci way Doudou Yaye Katy mu nekk koo xamante ni ku kenn dul fàtte la. xam naa duñu sori dama leen ba rek élément bi na biir. ndewoy ndewoy ndewoy say maane ndewoy alaykati ka mangala yaara njaay waay yàlla taw ci toolam nga bañ koo bañ a bañ yàlla taw ci toolam di gaamo yaay fa mbaaxoo baaya xaana bañ ma ci kongo yat ma le doom ju baax a noppal yaayam ku la neeti maa la gën danga ko naan ku la yar ànd dagan na tàggoo dagan na loo ci def danga koy teg ci yoon bu dul woon ak pexet noonu ànd yëpp neex ñaar bu ñu àndatee bu ñu déglu xi noonu way ki la bëgg ki la ñee neexu la xàmmee da ngay moom rek bu dee bu génnee wax ñaaw wey day waaw jox ko xëccal ko xëccal ko xëccal chaise nga xëccal chaise ba. waaw toogal naa xëccal chaise ba toogal noonu toogal. ndeysaan. raano raano raani bayal saan. ndeysaan. ma ngi daanoon ñu wax naan. mbokk amul maanaa te mbokki léegi ñoo raw. soo amee junni say mbokk yem ci am ami téeméer. nga béw ba xeble ndax ndol nga leen di teg. rëy rëy lu ngay doxee rëy rëy lu ngay waxee rëy rëy lu ngay jëfeek ñoom ñaam te ñoom fayda bàyyi laak sa am am te xam ni maami jur bàyyi mooy maami jur seeni bàyyi père da nga fekkee waxtaan te hasard amul ah. sama sëriñ ba yàgg na ko wax du du yàkkati lii waaw ku ma sànni déglu panaal da Alioune Badara Mbaye kaba daan way. dëgg la ak Ndiaye Lo sa digg sa suuf. ak Ndiaye Lo muy awru rëy la. Oh. xam nga li ba ñu nekk ko ne daan dem mbapat fii si saa de course. xam nga boobu du sekk mi bu ma saa takk fulaar ga nii. non su waye ñu bari bëree daal di yóbbu xamal lu daan yóbbu. Ah. déglu ay waye. man saan dem la ba. seebu boy samaam samaam nga biir boo ko jëlee. yee naw ma jigéen. soo ko ma jigéen ma jaraaf fi bondo ajaratu arab jeen njiitu jigéen ñi wene dana kumba mu seeja ma kumba seet bay eh. guli fatim ma joojo borom ngaay alhaji bara bay kaba way sa ganaar yee nong na fari mata mm. borom ni mu maani mataari mbay jaar basiru marim joob sëriñ Dakar waaye man yéen laa ko waaw Amina Maysa Badara Mbaye Petit Mbaye laay wayal. sas nga réew mi ba yee Dudu Diop Dudu Ayta Ndiaye. Baaji Samba yaayu ma yaay meeru Ndakaar. Dudu jaros, dudu yaay jaaga baas, tala bakar gondu yaay ba jëwel Ndakaaru. Wede eh, tala Ndakaaru déglu leen mbir feeñ na. Waa mbir feeñ na kay. Ah. Day sa déglu lii. Oh. Dakar déglu leen Sénégal déglu leen du baax ba ma way hmm. Amat Sam Demba Lab Abdou Yande wañ galo wañ galo wañ galo wandaake Demba Lab suru buubu a ah, kon dégg de eh. ah, ah, yow yaa ngi may bëgg a jàqal yaa ko way kii ñoon hmm. maa koy bëgg a gëm hmm, kaay leen coppali muy sedd waaw mooy dëgg de <laughs> mais nag Alsaan dafa fàttali Njaay loo mu mag ma yow dafa neex fàttali ma Saan fàttali ma it Abdoulaye Mboum ndaanaan lu mag. fàttali ma mu Ngone Ndiaye. waaw kii. historien ba kii kii daal kii daal dëgg rek ñi mu doon fekku leen. waaye léegi man joxuma la joxuma la Assane ma roqee man. Ah, kay ku ma njàngaan. bu bu géwél ñu toogaan bay woy. mu sotti toog rek. waaw di joxuma la Assane ma roqee man. man laa Assane ma yi ay nitu àjjana lañu. Ah, ñu ngi bëggal suñu xol bi nii vraiment macha allah. <laughs> jërëjëf Dieynaba. <laughs> xanaa rek am mbégte ndax man lii xamatuma woon sax fan la. waaw léegi yaa ngi may fàttali ne Aboulaye mi ngi naan la double vie la woon. loolu moo lay wan ne tout passe dans l' espace qui est passé. dama yokk nga ni. dama yokk. waaw waaw. xanaa lii da nga ko répété. da nga ko répété xam nga <laughs> xam nga ah, man j'ai fait Mouriski. j'ai fait école biscuiterie. H&M. lu mu gàtt gàtt j'ai fait école HLM. lu mu gàtt gàtt sa carrière bu gàtt bi sans bay bëggoon na ma doon intellectuel de haut niveau. waaw mais man bi ma juddoo lii laa doon lii laa opté. Uh-huh. pour devenir un communicateur traditionnel animateur de haut niveau. waaw léegi li nga wax léegi répété ko parce que. Ah, tout passe dans l'espace qui est passé. Oh. c'est extraordinaire. tout passe ah oui. dans l'espace qui est waaye ndokkeel nag bu baax ñaanu dut sekk yaaykat yi. Ah, macha yàlla mi nga xam ne moo mën a teeru nit. macha moo mën a bañ a seet benn ayib. Ah moo mën a jël nit def ko ca àjjana yu ko ah, neex. yàlla na ko yëgal ca àjjana yu ay ay ca àjjana yu kawe. ku rafetoon xol la. su ma wayaan ci làmb ji ba pare su daje ku ñàkk dépasse dalay jox dépasse leen leen li mu doo ko yóbbu këram loolu rek yàlla mën na ko ci dimbali tamit ku bañoon ku néew nit doole la ku fonkoon itam askan askanu mbokk la soo yàqee way foo yàqoo xam na ko am na ñu bari moo leen encadré ci làmb ji tey ba ñu mën a yor micro dara soo xewul kon moom defar na li doon def yépp <coughs> li ci des nag moom ci loxo yàlla rek la nekk yàlla mooy yàlla mooy séddale cër yi waaye nag tam bari na ñoo xam ne ñii yëngu nañu ci musique ci moom la ñu inspiré woo lu baree bari ba mën cee dugg kon ñu ñaar ko yàlla yàlla yàlla mën a euh, dugal yëgal ci ajana ya yàlla na ko yëgal ci àjjana kaw ya garmi baan ma ci li mën a dox maa ngi am na benn émission jongante hmm. loolu euh, Lamine Samba moo ko doon def yenn saa yi di dem ci euh, ci yenn ñi nekk ci lamb lamb gi mais moom ba ñu demee këram hmm. maa ngi fàttaliku loolu parce que daf ma dama voilà daf ma dama ko téye woon hmm. jabaram donc mu ne pare moom bu woyee ba pare cest à la muy indi lu muy njëkk jënd mooy ndawal c'est-à-dire que bëgg lu baax bëgg lu baax voilà donc bëgg lu baax mën mm. yor mën yor njaboot parce que am na ñu bëri ñi nga xamante ni mm. mu nekk ñu nekk ay artistes wala que ñu nekk ñi nga xam ne ñu ngi ci mm. temps di lekk lu baax di naan lu baax di tëdd fu baax euh, je pense que moom moom aussi euh, kii woon moom ak euh, Mbaye Dieye Faye Mbaye Dieye Faye aussi témoignage yi nga oh, oh, oh. xamante ni donc waa këram defoon nañ ko ci moom et c'est très très important ñibbi këram day gàddu. c'est ça sëriñ maa la ko wax. waay waay na biir na biir na biir na biir. daa bu jëmee këram. Oh. loxo yi am na lu ca war a ne. Oh. loo xam ne lii dëgg-dëgg su accès ñu xam ne accès ci këram. c'est très important. <laughs> kooku nag dëgg-dëgg dafa dafa dafa land ci askanu géwël. écoutez ce que Garmi est en train de dire. c'est important. Mm. Mm. ñëw noonu rek kenn dogalewu la. Mm. a ah, dëgg-dëgg wóorul na. Ah, waaw tukki nag dëgg-dëgg ñu na mën a def ciy baax. xam naa sax loolu beneen beneen beneen session la. beneen euh, session la kon nañu nañu tabbi rek ñaanal daal du sekk yaay kat yi. wax na daal dëgg dëgg yàlla mais balaa nga koy ñaanal. ñu fàtte man comme je dis chaque jour. Hmm. Euh, Sénégal bu ñu fàttewul Alioune Petit Mbaye. Hmm. du sekk yaay kat yi moo billaahi te loolu kóllëre la tudd. ci lu wér. chaque dimanche amul bu fu làmb di am te doo dégg. Hmm. mu wéy Alioune Petit mbay dëgg la et pourtant euh, yenn saa yi booy waxtaan dañ naan la xëj na ñoom ñaa sekkoon nañ lu ne wëllërante woon nañ lu ne waaye. am na ñu mu def defal lu ëpp li mu defal Doudou Seck yaay kat mais moom loolu daf ko jàppoon jàpp digganteem ak Aline Petit mbay ba nga xamante ni mm. ku xam du Seck yaay kat yi da ngay wax Petit Mbaye ku wax Petit mbay da ngay wax du sekk yaay kat yi mm. te yooyu c'est des valeurs yoo xamante ne day mm. baax ñu koy fàttali ndaw ñi parce que euh, euh, tonton Garmi jamono bi léegi dafa tas ba nga xamante ni nit yi dañoo gaaw a fàtte ku nekk tey en fait on vit au jour le jour malheureusement. Mm. li nga sekk ak jeena ba mm. man moom laay sóoraale tey. Mm. bu subaa fàtte naa dañuy li ñuy li ñuy naan dañuy yor ñaari saak li ñu leen di defal ci lu baax ci saak bu bënn bi rek lañ koy def. li ñu di defal ci lu bon ci saak bi nga xamante ne bënnul rek lañ koy def tout le temps bu wax amee les gens plus li ñuy fàttaliku mooy li gën a ñaaw. Euh, fàttali gën a rafet tey boo duggee askanu ngewel sànq rek loolu lañ doon wax ñu li jeena ba naan ay nitu àjjana lañ. c'est tellement ah, parce que lenn rek nit mënu ko fay wàccee boppam ngir dara jaal la yow ñun ñooñu amuñu amuñu amuñu en seen fay moo tax tout le da ngay gis ci ñoom ay nitu valeur nit yoo xamante ni vraiment booy jàpp ñu mm. baax bonté bi nga doon mm. mm. boo demee ngéwél da ko fay fekk ah, dëgg la oustaz Assane xam naa ne mm-hmm. sa sa baay ba Alaaji Abdou Aziz daana ko wax mm-hmm. ne nit koo xam ne boo ko séenee ci mbooloo bu la séenee rek ma ngay wax ca kaw di la wax lu baax mm-hmm. soo agsee siège bi mu toog day jóg jox la ko toog ci suuf ne kooku lu mu ci dolli gën humilité humilité. Mhm. humilité. humilité waaw waaw très bien. li nga wax nii rek loolu lay tënk. Ah, loolu lay tënk. mais lu mu ci dool rek gën la. Mhm. moo tax baax rek moo am solo. te nun nag loolu rek moo war jàngale ak wax lu baax. Mhm. ak di ko dox. waaw waaw waaw ku ne ci leen <laughs> xuloo xuloo xuloo xuloo da may waxal lu baax. waaw ah, mais mais c'est normal. c'est normal c'est normal c'est <laughs> baax kay moo ko def nag. dëgg yàlla yow xaram. waaw yóbbu ko kër giiram. bu amul dépense. ndax gàcceem gàcceem la. billaay du jeex soxla ko. yëkkati xaalis. di ko jox géeram mm-hmm. ah mais c'est normal loolu c'est normal xam naa Mamadou ñaa pari door mi ngi maa dégg uh-huh. Amadou Mbaye gar mi suñu màggalee bu ci suba ga maag laaj Lamine Ngom danaan nag dëgg-dëgg man sama sama poos yaa ngi nii jeex na de ana li ngeen indi <laughs> ñu ne ko daal 100 millions nag tu nous payes 150. waaw waaw ou 200 mu ah, lekk riba ñu ne ko waaw sa riba moom. <laughs> <laughs> soo bëggee nga jël soo bëggul nga dellu suñu xaaj. <laughs> nga lii la mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. bi kóllëre rek moo mën. wallaahi di fexe ñi nga xamante ni dañu dañu dañu dañu dañu nekkoon si réew mi. wallaahi borom teel leen jël te defuñu ko dara. billahi ñu fi bàyyi dafa lu ñu yàlla dara. dara hmm. te yàlla kenn mënu ko defal dara ba mu sof ko mbaaxam ak yërmandeem ak ñeewantaam si ñun rekk lay demee moom subhaanahu wa taala moo tax coro dafa wax ne nit yi dañuy gaaw fàtte du gaaw fàtte ñàkk kóllëre la parce que nit doo ànd ak moom muy neex mu naqari nga dëddu moo xam dafa amoon amatul hmm. moo xam dafa mënoon mënatul moo xam dafa wéroon wératul hmm. yooyu yëpp dafa nekk la nga xamante ni islam daf koy ñàng ànd bi fa war a nekk lu sincère l'islam laa lay wax wax naa la ko sànq borom bi subhaanahu wa taala dafa bëgg ñi nga xamante nii seen amitié ak seen ànd day sincère mm. nee na ñi nga xamante ni seen amitié ak seen ànd dafa day sincère mm. nee ñoo ñu ëllëg ñooy bokk fu ñu nekk sa aljana yàllaa wax de nee na al axillaa yawma idin baaduhum li baadin aduwun illa al muttaqin mm. nee na ñi nga xamante ni dañuy ne sa suuratu zuxruf nee naa la lu ma la wax nee naa la yàlla nee na wala yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ñi nga xam ne nee nañ dañu am amalante amitié bëggante soppante mm. te yàlla rekk tax nee ne bari waaye na ña nga xamante ni ëllëg si xuloo xiiroo jàppal bàyyi la ñu dëkke ba mu des ñi nga xamante ni seen kànd ragal la yàlla mm. moo ko laloon te ragal yàlla googu nag mooy kóllëre gi nga xamante mm. moom la ñu waxtaane nit ñi nañu am kóllëre nañuy sàmm li nga xamante ni moom moo di kóllëre ndax nit kat bu ngeen àndee bés dina ñëw jafe-jafe am mën na nekk si moom nga bàyyi ko ëllëg nag kenn dootu la ñeme bu dee koo àndal bu dee dafa amoon amatul manoon manatul wéroon wératul nga daw ko bu ëllëgee dootoo am koo àndal parce que ku la jib dina xam ne kii du nitu kóllëre te nit boo koy natt si jikko da nga koy natt si li nga xamante moom moo di kóllëre moom moom lañ moom lañ doon wax naan laaj euh, nit ki boo ko gisee ña mu doon àndal daaw daaw jéeg muy ànd ak ñoom moom kooku téyel di nuyu bu baax a baax tonton Saint-Louis Mané ah, euh, donc ko nuyu bu baax a baax euh, tonton Saint-Louis moom xam nga moom suñu suñu nit la suñu papa la waaw nit ku yàlla baaxal la nit ku yàlla baaxal la damay def benn témoignage gar mi mii sedd na li ma wallaahi jamono yu ñuy génn Yacine mii mm-hmm. doon di ma kiyee si télé bi mm-hmm. dañ koy maye ma ñëw si mariage bi mm-hmm. bi ñu toogee ñu ne sëñ Askia Touré mooy maye. mu ne moom du mayam taman ma nekk fi. waaw wallaahi Yacine maa ko maye. barke démb bi ñu koy muur. kontoon selu yu man la woo. ne ma lépp a ngi sa loxo. yaa koy muur yaa ko muur yàpp ko mm. mu dem sëyi mm. te ñoo bokk liggéeyukaay kóllëre yàggul barke Dembo Njaay ñu bàyyi la waat ko garmi mi mën na ko seede dëgg la kumba soxna kumba ñaaña ma ñëw ñu toog mu woo ma wax ma lépp ma ñëw mën a mag sama yoon nekku si lu ma amati yow yaa koy maye te kóllëre si kër gi moo ñu boole mais nag Assane mm-hmm. kooku dafa am lu la ko may mm. parce que Yaasin. Mhm. daa nga koy yedd. ne ko tegal sa tànk fii. Mhm. defal nii mhm. doxaleel nii. léeg-léeg mu laaj dara ci diineem nga teg ko ci. yàlla hasard amul. kul mu lépp loo xam ne nit def na ko. dama ne yàlla ci saa si léegi la lay fay. moo tax def lu baax rek moo am solo. loolu yaa ko fa ji moo tax ki la te ki la ki la joxeloo cër bi ne la mayel. afis alxuraan la. Serigne Saliou Kor ak Serigne ak ak Serigne mu dëkk Mbakol. xam-xam rek la feese foo ko laal Marième Faye Sall bu toogee ba mu yàgg daana ko kay defal ma conférence ci sama biir kër mhm. moom ak Sia Touré dama ñu waxtaan kon bu toogee mu ne kon. si ñaari secondes pour pour dëggal xam-xamam. <laughs> waaw dañu toog ñu waxtaan waxtaan bu sori. Mm. te yàgg lool. sa ëllëg sama am ko ma waxtaanal ma ne ko xaw ma kan de mais si ku am xam-xam la te waxew ñu ko pour dara yàlla na ko yàlla dolli seen wi maane ak njaboot gi yëpp xam naa sama orange money bi xam tonton ah, ah. Euh, nekk ay nit yoo xamante ne ñoom dañu nekkee stagiaire dañoo yàgg jàpp kon ci ci liggéey bi donc tonton Sane ñu ngi lay nuyu bu euh, euh, baax a baax coloré bi nga wax même si entreprise bi tax par exemple ñi ci bu ñuy takk jabar dañuy bañante fii ni ay njëkke Euh, donc Seydou Nourou Ba euh, man maa man maay man maay njëkkeem euh, ci ci jabaram Seydou Nourou Ba mooy xoore Maodo xoore Maodo kuccu laa koy woowee kooku mooy invité eh, c'était l'invité du roi <laughs> c'est ça l'invité du roi <laughs> <laughs> te Apulaay mii buy takk jabar man lay may njëkke insha allahu rabbi donc loolu yëpp di waree kóllëre insha allah su ma amee doom dinaa la ko tuddee coro donc voilà boo ko toj ah, waaw ndaw doom bu rakkaaju turandoo coro doom jeena ba yaay jeena ba voilà merci beaucoup Garmi ci li nga ñuy bëggee la yow tamit Euh, jeudi euh, bu nekk ci mm. euh, kilifa yi ngi ñuy indil saa su ne ñu leen di fàttaliku ñu dëddu wala ñu ñàkk dëddu ñi seen fan gudd lool. ñu leen di kon di ci jaajëfal bu baax a baax tonton Garmi mm. Garmi